Euh, bëri na nag ay canal yu bëri yu ñu gis bi ñuy def recherche ay canal am ay canal yu bëri yu def xabilaam officiel waaw mais bi yaakaar nañ mooy canal officiel bi moo tax euh, ñëw def ci taxaw seetlu euh, top secret lundi pour ñi nga xam ne des fois dañuy am jafe-jafe ci lan lañ war yan façon vidéo lañu war a def waaw yaakaar naa xabilaam maanaam inspiration la ci ñooñu waa ñi nga xam dañuy am jafe-jafe pour def vidéo voilà parce que partir na ci benn idée bu simple simple idée bi mu def ko kanaal ba kanaal bi mujj nekk business waaw loolu la ñuy fas yéene waxtaan ak tey avant ñu sore nag ñu lay fàttali ba léegi kanaalu euh, ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Seydi bi 1000 abonnés yi matagul te xam nga bëgg waxoon nañ bëgg nañ balaa balaa septembre bi di jeex mu matal 1000 abonnés mais mi ngi euh, ba léegi 900 yi des na tuuti sax voilà ñu bëgg nag ñi nga xam ñëpp ñi ngi seetaan vidéo bi euh, koo xam ne yaa ngi koy seetaan rek te abonné goo si woon ah, nga dem abonné pour soutenir ko su fekkee abonné nga ba pare tamit waa pour 1000 abonné yooyu mën a mat ci lu gaaw waa ñu ngi lay demander soo mënee partager li nga xamante ne mooy kanalu Abdoulaye Seydi bi ci sa onglet communauté wala nga partager ko ci sa WhatsApp wala ci sa Facebook wala Instagram pour ñeneen mën si abone pour 1000 euh, abonné mu mën ko matal. Euh, vidéo time na comme ni ñu la ko waxee top secret lundi la. top secret lundi bi day dañuy ñëw ci kanalu euh, xabilam xabilam nag moom tiktokeur la ci tiktok la la ko nit ñi gënoon a xamee mais comme nag euh, monétisation mi ngi fépp tey réseaux sociaux yi moom boo xasee doxee fenn rek nga ubbi yeneen yi pour dox si comme te bu canal yi muy def yi nga xam ni moom euh, artiste comme mun nañ ko boole ci artiste comédiens yi donte xam naa à la base bi muy commencé affaire boobu comédie taxuloon mu koy def da ko doon parce que confinement bi la ci jaar jaaram ak yooyu parce que moom Sénégalais la d'origine mais Italie la nekk fa lay waaw mën nañu ko jàppale italien la fu nekk di fa fa la nekk ak famille je crois am na vidéo yu bëri ñu ci xool yoo xam ni gis nañ vidéo yi nett nañ parcours am mu nekkee xale ni mu newee Italie af et et cetera waaw comme loolu du objectif vidéo objectif mooy ku ku ku ku amul inspiration pour def vidéo nga mën a inspiré woo ci xabilaam bi xam ni mën nga déparé ci idée bu simple boo xam ne yow pour yow dafa ñàkk fayda mais yàlla bu ci defee barke rek affaire bi gis nga mën na egg foo xam ne sa yow xalaatoo ko woon waaw loolu moo dal xabilaam moom da def ay vidéo li nga xam ne mooy ay vidéo TikTok vidéo TikTok nag toujours day jël TikTok yi nga xam dañ koy comme chinois yi ñëpp lu ñu koy def dañuy def ay TikTok parce que ñoom comme dañuy chinois dafa bëri lu ñuy defar ay gadget waaw gadget daal mooy loo xam day yombal su dund looy ubbee benn affaire wala looy defee lii wala et cetera boo duggee si AliExpress presque gadget yi kenn xamul lu mu toll chinois yi loolu dañ ci foor léegi nag dañuy def pour ñu defal publicité gadgets yooyu léegi-léegi dañ koy dañuy dañuy def ay ay vidéo TikTok di ko dugal TikTok pour nit ñi di ko seetaan pour mën a euh, jéem a dem uti gadgets yooyu ci Ali Express léegi-léegi tam mu nekk rek ñoo xam ne fën la nii rek dañuy def comédie di dof dof la wane benn affaire di xool ni ah Ali xaw ma nu ma koy réglé yooyu moom nag mu jël idée ci loolu di jël vidéo yooyu di ci def euh, li nga xam ne mooy ay TikTok su wanee ku def benn affaire bu jafe mu def à côté wala mënoon nga koo defee nu gën a yomb ba pare mu def ko loo xamante ni maanaam langage universel la muy lan muy du wax ñàkk wax di def ay gestes mooy langage loo xam ni boo ko defee ki dégg olof ki dégg français anglais chinois ñoom ñëpp dinañ xam li nga bëgg wax te sans dégg langue bi ngay wax parce que italien bi mu dégg sooy kon italien lay expliquer ki dégg olof du ko xam kese du ko xam ku dégg français kese du ko xam mais langage bi muy utiliser moom la ñuy wax langage universel mooy langage boo xam ne ay signes ngay def ñëppay xam li ngay <laughs> li ngay wax sans sa làmmiñ tudd ko voilà ah, moom loolu moo ko moo ko développé temps wu coronavirus bi muy commencé xam nga Europe confinement bi métti na itali corona bi dafa woon ci biir confinement la wax moom ci la yoroon téléphone am commencé di def yooyu gisee ku def benn affaire moo ne daal nii dafa compliqué mën nga kaa defee nu simple ne la gis nga <laughs> léegi sa fekk nag loolu dem am buzz ci TikTok ndax jamono confinement bi Europe ñëpp ñu ngi ci internet même ñi daawul am jot pour nekk ci internet ñëpp ci internet bi loolu nag bi mu période bi mu ko defee daal dafa favorable voilà affaire bi tax mu am bëm ci euh, réseaux sociaux yi léegi nag gars di ko partagé ba ñu bëri def ci ay vidéo télévision yi commencé ci en def ay moom ay reportage ba fu mu nekk nii affaire bi business dëggantaan la nekk ci xabilam dinañ la woon après business bi nga xam ni créé na ko autour ci vidéo TikTok yi mu doon def waaw tout pour wax la euh, boo ko gëmee li ngay def rek ak idée bi lu mu lu mu naw naw pour yow rek nga jël ko def ko sérieusement rek yàlla mën na la si mën na la si dimbale nga réussir moo tax que léegi-léegi nii dem naa ah man wax dëgg yàlla dama xamul bëgg naa ubbi YouTube mais xawma lan laa war a def vidéo ndax am nga façon vidéo yoo xam dina dox déedéet façon vidéo yuy dox ak yu dul dox loolu mi ngi dépendre si li ngay def dafa neex nit ñi rek bu neexee nit ñi rek dina dox voilà nekkul nekkul ni vidéo bi ngay def day am solo rek day dox déedéet mën nga def vidéo yi am solo di jàngale lu am importance pour doomu aadama seen àdduna te vidéo bañ a dox parce que nit ñi loolu intéressé wu leen voilà nga def ay vidéo yu ñàkk da mu intéressé nit ñi voilà <laughs> parce que affaire choix ak goût la loolu kenn du ci xuloo parce que ku nekk ak li la neex waaw mais daal yow li nga xam ne sa passion la wala neex na la daal bëgg nga ko partager partager voilà boo ko partager dina am ñu mu intéressé peut-être euh, après mu dox soo ko partager lu yaa ngi intéressé wul nit ñu bëri ah su amee am nga beneen idée nga def ko noonu la rek voilà affaire bi moom bi mu koy def su ko defoon lu yàgg peut-être eh, yi kenn seetaanu ko xam nga mu ko voilà mais comme bi mu koy def gis nday TikTok day am ba finalement yàlla dimbali ko si affaire bi sur le plan mondial léegi la am parce que nekk ci réseaux sociaux yi ñëpp xam nañ ko voilà mais ko xamul tamit peut-être tombé nga ci vidéo léegi boo xoolee canal bi. waaw def na xam naa nag canal bi mënoon na gën a nag kii parce que parce que xëy na business bi lañ gën a la gën a concentré wu ndax après finalement bi affaire bi demee ba dox dafa am ay manager rek ay yooyu ay nit ñëw proposé ko loolu maanaam daal defal ko ko business parce que tubaab bi ñoom fi ñu utee euh, xaw a ñun tuuti ci loolu mooy euh, su benn affaire ñu gisee affaire bi intéressé na indi rek dañuy xool nan la ñuy créer business bu wër affaire bi comprendre que ce qui fait que affaire bi day mën a jur yeneen yeneen dérivé waaw ay produits dérivés da ciy mën a génn ak yi demee noonu mi mel ni euh, léegi-léegi tubaab bu ñu defee filmu cinéma film bi bu ñu ko defee dañ koy defar dépensé ci par exemple cent millions wala deux cent millions de dollars wala cinq de dollars moo xam bu ñu defee film ba pare lancé ko dawal ko ci cinéma yi foofu États-Unis dawal ko ci cinéma yi Europe xam nga loolu am na xaalis bu muy généré mais am na beneen xaalis bu ëpp lu ñu ciy généré muy lan muy produits dérivés yi ñuy créé ci film cinéma boobu par exemple bu ñu la defaree film boo xam ni dañu la defal film Capitaine America exemple film bi daw na ba pare ba nit ñi seetaan ko xale yi bëgg nañ ko parce que super héros la buñ paree dañuy defar ay ay fowukaay yoo xam ne dafa jëm ci Capitaine America tas ko ci àdduna bi di ko jaayee xaalis bi génn ci loolu dina dem ba ëpp doole sax li nga xam ne moom lañ gagné ci salle de cinéma yi voilà noonu la ñuy noonu la ñuy def lu mu nekk rek mën nañ ci créer business autour waaw xabilaam dam noonu la demee am na foofu état yoo xam ñoo xam ne ñoo ko ménager ci loolu xam ne kii mën na ci créer business ba fu mu nekk nii créer nañ business de tiktok xabilaa mi nga xam ne mooy nii kase lañ koy defee ñaari loxo yi muy tàllal mu lay mu da lay wan lu jafe ne la nii kase lañ mënoon nga ko defee nii lool nag nekk na business mu nekk nii mais bu ñu xoolee kanaal bi kon ni ma la wax peut-être euh, euh, mënoon nañ ko gën a rafetal leader bi simple na trop voilà tur bi def na xabilaa officiel def photom boo xoolee bu fekkee nag bii mooy officiel parce que yaakaar naa mooy officiel lu tax parce que dama gis ni même euh, site am ak yëpp nekk nañ te yeneen yu bëri yi ma xool liñ bind officiel gis naa ni su doon officiel bi dina am information yu nekk yoo xam nekku si waaw loolu moo tax ma jàpp bii mooy canal officiel bi voilà si euh, photo profil def na photo tur bi gis nga xaban lam officiel voilà euh, boo xoolee def na vidéo intro bi vidéo intro bi ñu ko defee léegi 4 mois la fii yeneen chaîne yoo xam ni intéressé nañ ko la partagé fii voilà jeex na deful yeneen vidéo yi fii ci ci ci accueil bi boo xoolee fii section vidéo yi nga vidéo yi bi mujjee dugal yi nga 14 heures la am beneen bi ñu nga deux benn jour presque daal chaque jour dina dugal benn vidéo wala ñaar voilà la parce que bii ñu nga deux jour deux jours comme bii ñaari vidéo la dugal voilà gis nga vidéo yi dox na ci moom waaw macha allah parce que tey vidéo yi simple lay defar voilà te simple day si bëri duñ gudd waaw mais duñ dugg ci vidéo yi di ko cliquer pour euh, des raisons de droit d'auteur ki demee noonu ay kontaan ID ak yooyu lañ ciy bañ voilà donc buñ ci duggoon bi sax na am voilà pour nga comprendre en tout cas boo ko bëggee seetaan vidéo yi TikTok yi Xabi Lamb fekk yow yaa ngi déglu vidéo bi te xamoo ko woon wala mosula intéressé nga dem dugg si euh, Xabi Lamb officiel wala li gën comme canal dañoo bëri lien canal bi ngeen moom lañu defee vidéo bi dinañ ko def ci suufu description vidéo bi waaw lien Ablaye Seydi bay nekk ci kaw bis topp lien Xabi Lamb lay nekk pour soo ko bëggee dem visiter ñu xool playlist waaw playlist créé na ay playlist yu bëri waaw c'est am na playlist yoo xam nag ay ay ay vidéo ñeneen la ci def voilà ay vidéo ñeneen la si nekk onglet communauté voilà onglet communauté bi tamit ñu ngi partagé ci onglet communauté bii moo Naomi Campbell la Naomi Campbell euh, ñi ko xamul mannequin la mannequin international bu mag a mag la voilà nga fii mi ngi bàyyi faalu nii xam naa ci màggal gi la <laughs> voilà ji nga fii mi ngi sol t-shirt yi moom mi ngi koy business voilà fii ñan la nekkal euh, House of Paper Gomorra waaw fii xam naa ay youtubeur italien la wala mu nekk film ay acteur italien ñu xaw ma leen xam naa chaîne yi présenté si accueil bi ñoo ñëwaat fii waaw bu ñu nee chaîne di nga partagé ay chaîne ay acteur ak ay woykat yu mag si àdduna bi voilà ndax ñu muy suivre la bu ñu nee à moo ci ëpp moo ñu ëppal importance wala def na description bu gàtt mu def euh, xabilam xaban lam euh, def fii officiel YouTube channel maanaam fii mooy chaîne officiel bu xaban lam mu def fii xam naa lii si italien la euh, c'est volete ridere siete nel posto gusto maanaam su fekkee daal da nga bëgg lu xorom bëgg a reetaan voilà yaa ngi si endroit bu baax bi <laughs> yaa ngi fi ñu koy defee daal voilà léegi fii def na li nga xam ne moo ay Instagram yi nga xam ne recherche dañ koy def. ko ay xaban lam officiel channel et ay mots clés la daal voilà yu mu bind fii bu ñu wàccee suuf li nga pays bi États-Unis la sélectionné par défaut waaw lii xaw ma tax mu sélectionné parce que moom mu ngi Italie euh, fii def na lien TikTok def na lien Twitter def na lien Instagram fii euh, def na li nga xamante ni mooy euh, boutique am bu muy jaay ay produits voilà gis nga moom laa doon wax business bi nga xam ne créé na ko autour boo xoolee chaîne bi ñu ngi ko créé le 2 mars 2019 voilà. léegi bu ñu ñëwee visité boutique bi voilà voilà léegi site internet bi ubbeeku site internet bi nag euh, kii la boutique la site bu muy jaayee la ji nga dans la boutique xabi wu trouverez de produits viraux pour vous faciliter la vie maanaam ci boutique gu Khaby Lame bi li nga fi say produits yoo xam ni produits yoo xam ni maanaam yu ñëpp mën na jëriñoo la dañ koy partage fépp te ñëpp dinañ la dina nekk loo daal dalay yombal ci sa dund. léegi nag fii am na tuuti waaye meñ wax si business ba pare gis nga mooy comme li ma doon wax gis nga fii gis nga genre projecteur Galaxy la bu muy jaay voilà xam nga moom si moom defaru ko mooy comme business bi loo xam ne créé na ko autour parce que comme ut na ut na manager benn équipe boo xam ni ñoo koy euh, coacher léegi si ginnaaw léegi ñooñu ñooy créer business autour moom muy nan dañuy dem si ñuy defar ay objet objet yooyu bu ñu leen defar ñu waxtaan ak yooyu marque yi di defar ñu koy jaay ci labelam moom muy xabi shop bi muy xabi bu ñu ko jaayee ci ci labelam ce qui fait que euh, société bi moom produit bi day am pourcentage moom tam mu am pourcentage parce que ci labelam lañ koy defar ba pare moom mooy def promotion bi ce qui fait nag produit yooyu société bi lu mu ci produire suñ ko jaayee moom dafay am marge boo xam ne ci am waaw moom du produire affaire yi mais marque am lañ ci lañ ciy posé pour di ko jaay voilà boo xoolee gis nga effigie bi mu defar nii si t dañ koy jaay yaa ngi ci koy jaay ji nga 20 euros gis nga projecteur bi ñu koy jaay vingt neuf euros wàccee ji nga set yi ba léegi moom la ñu koy jaay ji nga vingt euros bi machine buy defar popcorn euh, après am na contradiction bu fi am après dañ ñëw tuuti <laughs> wax si machine popcorn gis nga 34 euros gis nga euh, bi machine buy presse ay euh, fruits la pour de ko def jus comme ay orange wala citron et bi gis nga ay affaire bougie waaw nga bi chargeur la bi coupeur de melon d'eau rupture de stock waaw bii nee na actuellement dafa dafa manqué voilà dagg bu ñu kii pour dagg xaal la xaal baa ngi ni mu yore quoi voilà gis nga bii euh, kii la sorte la voilà mais bu dee xam nga sorte bi losing mun na defar sorte jaay ko voilà mun na publicité chargeur voilà ñu ngi koy jaay mais par exemple comme dagg xaal bi daa contradictoire ak moom <laughs> li muy wane si vidéo parce que day wane ni xaal bi soxlul ngay ut ay machine bu koy dagg jëla sa paaka nga dagg ko comme loolu lay wane nga comme business gars yi moom tubaab ñoom lu ñuy def business lañ ci xalaat commencé na léegi société yi doon defar produit yooyu nga xam ni moom lay wax jarul ñu koy jënd produit yooyu fi ne ñoo ñëw di ko sponsoriser léegi pour ñu liggéey ak moom pour ñuy produit yooyu gën a dox parce que produit yooyu ni en même temps ngi lay wan ne jarul nga koy utiliser mën ngaa def ñi duñ def loolu nit ñi bu ñu bëggee dagg xaal gis appareil bu xam dañ naan la da ko siy teg rek bés mu dagg xaal bi par exemple cinq jënd waaw donte moom li ko siyool mooy loolu Euh, gadget yi ngay jënd soxlawu ko da bu yàggee dañuy fees dell sa kër gi te yëpp mën nga xaar defal sa bopp voilà mais en retour marketing mooy loolu ñuy def marketing moom toujours affaire bi nan lañ ci amee opportunité la ñuy xalaat waaw comme gis nañ ni xawilaam siiw na ci loolu léegi dañuy bëgg jël gadget yooyu di ko jaay ci turab comprendre nga te dina rox parce que ñoom dinañ ko jënd voilà mooy li ñu la wax rek mooy comme par exemple lii am na vidéo bu mu def boo xam ne comme saboté nag ñi nga xam dañuy wala defar kii bi limon bi di ko dugal ci ay machine pour daggate ko wala pressé soxlawu ko dagg ko ay trans jël sa loxo nga pàccal <laughs> mais gis nga mi ngi mi ngi publicité <laughs> Gadji buy def loolu voilà. voilà mais business moom business is business loolu la ñuy wax fu mu nekk ni dafa dugg ci business pur et moo tax léegi euh, noonu lay mën a demee te loolu bi nekk ci ginnaaw ñoo koy def euh, promotion. li mooy li nga xamante ni mooy beneen business bi nekk ci ginnaaw xabilaam muy di ay produit te def nañ produit yemul fii de toujours di am produit yu bees yoo xam ne dinañ ko dugal waaw ah, parce que loolu la def fii Xabi Shop est le commerce officiel de xabilaam maanaam boutique bii kas mooy boutique officielle am Instagram xabi 00 TikTok xabi point lam xabi shop Habishop nag mooy marque moom lay teg après ci euh, gadget yi nga xam ni moom lay jaay ak t yi ak yi demee noonu voilà muy beneen business bu créé ci kaw léegi nag ñu dem ci li nga xamante ne mooy social blade pour xool monétisation pure et dure nga xam ne moo ñu gën a intéressé muy AdSense bi parce que du ñëpp ñi am canal ñoo mën di jaay ay produits ci ginnaaw kanaal bi pour nga jaay produit ci canal bi il faut mu nekk par exemple sa marque personnelle nga développé wala mu nekk da ngay def ay promotion nga nekk artist wala ay demee noonu wala nga def promotion benn euh, ay ay ay kii ay euh, marchandise wala dara après autour loolu mu ngi mel ni influenceurs yi autour business bi ñu def mën nañ créer seen propre marque ci loolu voilà waaw mais du du tibb canal yëpp ko mën mais nag tibb canal yëpp ñooy gagné ñoo mën a gagné ci AdSense waaw moo tax monétisation AdSense lay ñëw xool boo xoolee social blade lu mu ñu wax information yi nekk fële YouTube ji nga nombre euh, vidéo yi nekk gum si canal bi 347 euh, nombre abonné yi 1 million et quelque 1 million 400 euh, presque léegi mu jege 1 million 500 nombre de vues total yi ji nga 585 millions. di nga chaîne bi moo ngi nekk euh, Italie di nga fay officiellement mi ngi bind États-Unis mais di nga exactement voilà lii moo logique kii chaîne bi mu ngi ko détecté Italie donte États-Unis lañ affiché fële mooy wax nañ la ko sànq waaw léegi bu ñu ñëwee ci suuf li ñu gën a intéressé nag mooy monétisation waaw bu ñu ñëwee lu ñu wax fii social blé nee nañu moom par weer euh, minimum bu fekkoon canal dafa nekk par exemple fii yëpp ñu ngi koy seetaanee Sénégal dina gagné quatre-vingt-neuf mille su fekkoon su fekkee vidéo am yëpp dañ ko doon seetaanee par exemple Italie kase <laughs> wala ay États-Unis ak ay xeet googu moom mën na gagné un million de dollars di nga par weer voilà gis nga loolu lañu social blade defal léegi nag comme xam nañ ni moom vidéo mi fépp ci àdduna bi lañ koy seetaan dëkk yu seen monétisation baax ak dëkk yu seen monétisation baaxul fépp lañ koy seetaan kon daanaka mën nañ mën nañ ko yóbbu si si à peu près digg bi voilà xabaan laam kon canal bi mën na cee gagné à peu li nga xam ne mooy ba entre trois cent ba cinq cent mille dollars voilà comprendre trois cent ba cinq cent mille dollars mën na koy gagné ci li nga xamante ni mooy euh, chaîne YouTube xam te loolu bokkul ak li nga xam ne mën na koo gagné ci TikTok parce que TikTok am na fon fon boobu day fay ñi nga xamante ni comme ñu mel ni xabilaam lañ maanaam dañuy apporter day téye nit ñi ci biir TikTok mooy fon pour euh, pour TikTok pour tiktokers yi bi nga xamante ni TikTok lancé na ko TikTok amagul monétisation comme YouTube am na fond te fond boobu moom dëkk bi mu nekk dëkk buy part buy bokk ci dëkk yi biy participer ci fondu TikTok la parce Sénégal bokkagul ci dëkk yi participer ci fondu TikTok mais itali dëkk yi participer ci fondu TikTok la kon moom TikTok bi tamit ni muy gañee ci YouTube mën na ko gagné ci li nga xam ne mooy euh, TikTok. kon vidéo bi fii lañ koy yemale ñëwoon di leen expliquer la euh, top secret leen di tey bi ci kanaalu Xabi euh, Lam muy Xabaan Lam. Euh, nga xam ni euh, jaru ngay xeeb benn tibu vidéo l' essentiel bul def lu vulgaire rek moo moo ci am solo waaw bul def loo xam ne lu bon da ci génn luy génne sexualité wala di nekk ci internet di saaga pour am vie yu bëri loolu mooy li bon voilà looy li ngay def daal bu fekkee jëm na ci comédie jëm na ci ah, di xamal nañ ñi dara jëm na di partager lu lu lu lu lu baax jëm na ci joxe information jëm na ci ji yeete moo jëm na ci di jàngale ak lu mu munti nekk rek l'essentiel na nekk loo xam ne rek maam ñëpp mën nañ ko si seetaan teggi na na du lu bon du nekk luy favoriser mbon waaw bu fekkee loolu type vidéo yi ngay def rek bu ko xeeb jël ko sérieusement yàlla mën na la si ubbil bunt comme ni mu si ubbilee buntu ki nga xam mooy xabilam kon vidéo fii lañ koy yemale di leen jox rendez-vous aussi Top Secret lundi ba lundi bii di ñëw incha allahu rabbi jërë